démb président Sall président Diomaye euh, euh, teewoon na foofu la ca France euh, ci dal gi nga xam ne président Macron dalal na ko fa waxtaanee nañ fa yu baree bare nag ak coppite goo xam ne nee nañu yu peq la war a doon ci diggante jëflante Sénégal ak France wax na itamit lu jëm ci wàllu militaire yi nga xam ni France amee nañ ko fi ñu ngi noonu seen photo boobu démb la ba ñuy yegg ngir di añandoo ko di fi yëf waxtaanee nañ fa lu baree bari nag ñu déglu ci lenn ca ab bu fa bawoo te dellusiwaat. la présence militaire française, c'était 300 militaires français, va être réduite à 100 mm. d'un commun accord. Ce que veut faire la France, c'est éviter d'être foutu dehors, comme ça a été le cas au Mali, au Burkina Faso mm. euh, et au Niger. Mais, et c'est là où joue l'autre mm. force, le Sénégal a besoin de la France sur un point précis, c'est que la France est le premier investisseur aujourd'hui au Sénégal, qu'une grande partie de la vie économique au Sénégal tient de ses liens avec la France et que la France est le premier bailleur de l'aide publique au développement du Sénégal dont le Sénégal a cruellement besoin actuellement. Donc la grande différence avec le Mali et le Burkina, c'est que le Sénégal a déjà une économie développée. voilà mi ngi noonu dem gii nag démb am na lu bari ci ay média Afrique yoo xam ni rafetlu nañ ko ba tuddee ko sax daal euh, ndam loo xam ni ndamal Afrique la lu jomaay am démb mm. loo xam waxuma la Sénégal laa maanaam journaux yu africain yeeg ñu bari daal bind nañu. Hmm. Euh, gën a fësal ndam li Diomaye am demb wax na maanaam demam gi gis nañu ci ndam ñoom. maam ndamul lan. yow xamoo ndam. xam naa ndam mais ndam lan xam nga tey jii. waaw léegi boo ne ma laajee ndamul lan yow xam nga ndam waaye. non xam naa ndam. ah waaw lan la am daal. léegi jomaay dem na fa. Hmm. ak demam gi démb jural na ndam Afrique. waaw muy ban ndam la laa waaw léegi yow yaay lijjanti ba ndam la. ma xamoon ndam la. léegi man limal naa la fi wax naa la fii ni la am na euh, maanaam lu bees lu war am. Hmm. base fran euh, base française bi nga xam ne mi ngi foon ci trois cent militaires ne fi léegi dinañ ko yóbbu ba cent militaire hmm. wax nañ ci yu bëree bare bëri. kon kay. <laughs> Ah? benn point bi daal nga ma fi wax. ak Macron wax na il faut ñu xoolaat diggante Sénégal ak France loolu kay Assane nag bu ñu nee ndam boo bu ma doomu doomu wolof nga yow déggoo français déggoo déggoo arabe yow déggoo anglais déggoo français ay wolof laa la wax nga naan ma ndamu lan maa xam nga président Diomaye dem ah. dem dem France seeti Macron ñu ni maam Afrique yëpp am réer ndam la ndam kon waaye jàngatal loolu kay laa la jàngat loo dañ koo fal mu seeti réew yëpp seeti France waxtaan ak ñoom waaw mais loolu kay lu ko war la bu fa jógee daa war a dem si réew yëpp la war a seeti demu fa comme ah, ah, kuy ku dem gane ji de non ni mu demee si réew yi léegi la demee si réew yooyu ni mu demee si réew Gambie gii noonu la demee France. ñoo yem ci moom képp. fu mu dem ab président la fa fekk. Mm-hmm. mais lan moo tax ñu bëgg a réyal. France lan fa waxtaanee yitteelu la. lan fa waxtaanee base militaire bi dañ doon wax naa na jóge moom kay def dafi war na jóge. waaw loolu kay laa la jàngat lool. mais déet jóge fi dañ ne nañ ko wàññi. waaw. mais dafa war na jóge ginnaaw amu fi njariñ ñoom ñoo la waxoon loolu. waaw. ñoo la wax ne la fi jóge waaw. ah bon waaw. na fi jógee waaw. ah Assane loolu mosuma ko dégg. waaw mosuma ko dégg mos man. fan la. fii Sénégal. ku ko. ñoom ñëpp. ñoom ñan. moom daal ah, déedéet xaaral déedéet Assane ñoom ñan déet waaw xaaral Assane xam nga démb noon nga def ba benn hmm? waaye suñu waajooji maa ngi koy nuyu Assane euh, kii kii kii jaay puce yi nee na ma saa yi boo karkaralee soo ko laajalee dara danaa laaj ko commentaire yi mais commentaire des fois lii ma commentaire xam nañ ko commentaire yi seetaan xam nañ ni ñoom waxoon nañ base militaire yi. non non léegi kan moo ko waxoon fii kan yow loolu li mu yombee. ñoom danañ la wax. am na ku ko wax fii. waaw ni la fi jógee. ni la fi fi njariñ. alaaji yow dégg nga. xaaral ba ay la moom mooy. waaw la baax ah sa waxi bopp la. sama waxi bopp la ñi may waxal ñi ma concerné ñi may wax seetaan te xam nañ ni wax naa dëgg. non man de li ma déggoon ci Sonko wax ko. mooy li ñu fi am ci suuf maanaam li ñu leen jox dafa bari loolu daal laa fi dégg waaye nañ fi jóge waaw acca bismillah yeggaleen kon nag tey jii bu àggee na leen wax na ko wax ko sa base militaire ba fa nekk na fi jóge waaw bu fekkee ni nee na ko ah ñooñu kat duñ fa mën a jóge nangam nangam xanaa ñu wàññi leen mhm. ñu d'accord si wàññi leen mhm. loolu lu baax la mais daal en tout cas nañ nañ xool daal loo xam nga président Macky Sall da nga maan tukki na indaal na nangami milliard mhm. wala tukki na indi na nangami xaalis donte duñ xam fa mu koy dugal sax mais daana indi mais président Diomaye mii ñu ngi koy diglu ba mu ñëw ba xam lan la fa jëlee ak lan moo xew waaw loolu daal laay di joxe elage ne nii waxaguma dara damay xaar ba mu ñëw ba xam carrément lan la fa jëlee ak lan la signé ak yan accord la la am ak lan la dindi ak lan la dugal ak lan la yoon yu jariñ ak sërite bi ak ak ak ak waaye xamaguma ci dara moo tax du ma si mën a sori joxe elage jox ko. damaa amul honnêteté ni man li nga ma jox xawma ci dara <laughs> joxal alaaj nga ni naa xaar ba jumaay ñëw. damay xaar ba mu ñëw. mais yow avant moo tukki lépp. bindal nañ la ko ci journaux yi nga dégg ay ah, son nga dégg ko moom jomaay démb mu wax déggoo ko démb déedéet déggoo ko foo ne woon fii si Sénégal dégg ma ci dara xamul mu fa wax nga teg nii dong xam ma ko sànn non non mais waxuma kii jomaay la président jomaay wax na lan la discours am bi déglu woo ko déedéet ah non mënu maa discours da nga ko war teg nag loolu démb démb teg nañ ko fii déedéet man dégguma fu ñu teg ab discours discours am sa France sa macro dégguma ko yow asal exemple wàllum vaccin léegi wàllum vaccin ya nga fi teg. léegi yow démb yow président bu. tukkee démb ci wàllum vaccin ya nga fi teg léegi yow pour man balaa nga toogaat plateau war ngaa dem def ay gëstu xool déglu lu mu wax wala lu ñu bind. la wala léegi su ma digloo loola ba pare ba xam. Hmm. far ma ñëw indi woo élément boobu nag. nan laa def li ma nga ñëw ci. wala ñëwal déedéet ñëwal ci loolu. joxe hélas rek jox ko. asal ñëwal joxe hélas jox ko. <coughs> barke Serigne bari set bu bëri tappal dëgg dëgg dëgg dëgg alaaji noo gisee génn président jamaay gi euh, euh, journaux yu bari nag wax nañu ndam lu lu mu am ndam lañ ko mën a tuddee jëflante Sénégal ak France bu ñu fas yéene tegaat ci aw yoonu bees teq incha allah loolu daal tukkee na fa nga xam nga Assane da ngaa yàq émission am moo tax mu yàq sa émission yow it parce que Assane dafa ñëw fanaanoo RTS bi mu ñëwee nga wax ko li waa ji wax ba noppi mu ne la chef de chambre ba la mu wax. <laughs> waaw waaw waaw bi mu la waxee. waaw tontu ko quoi maanaam jàpp nga ni loolu moom du du normal continué nga. mu bës ci chef de chambre bi faale woo ko. waaw moo tax gis nga ko après ba mu duggee fee. moo tax mu jël police yi dina leen dugal léegi pour ñu war a nekk ci biir kaso bi di garder. <laughs> am fab lal. yooyu yore arme parce que mu la programme woon. Ah. foofu nga ko yàq boo tax fii bi nga jëwee rek. Ah. da nga ko laaj ci kii la mu naan la ndamu la waaw lii ak lii li ma la wax la la loo nga ne ko benn point doo ah. <laughs> yaa ngi dégg maanaam coup bu jël fële parce que prévoir na ni. bu la waxee chef de chambre bi fa la doon def appui. wax la mu war a wax yépp waaw waaw. waaye Assane daanaan la. waa tout d'abord ñuy am mbégte bu baax a baax comme africain yëpp niñ ko amee hmm. euh, mu nekk loo xamante ni lu am solo la son bu parce que wax dëgg fa yàlla dem boo xoolee euh, ndam li sax c'est pas que ni africains yi donc ñoo ko wax tubaab yi ñoom ci seen jëmmi bopp dañoo wax wax joo xam ni dafay wane ni ndamam na parce que dañ ne c'est fini euh, complexe gi nga xamante ni bi amoon na ci diggante réew tubaab yeeg jeunesse boo xamante ni bu de décomplexé lañ comme que président Diomaye li nga xam ne noonu la ñëwee ñoom gis nañ ni mat na li mu doon waaw parce que nee nañ ku calme la ku kii la waaye nag ku mat li mu doon maanaam daanaka sax euh, boo seetee euh, dañ ko tagg parce que am na yoo xamante ni bi daan nañ ko gis chef d'état africain yi bu ñu daan ñëw niñ daan mel ak mi nga xamante ni bi léegi ni jomaay ñëwee gis nañ ni loolu bokkut mhm. maanaam moo tax it gis nga boo seetee rek ci doxalin beeg Macron yëpp euh, boo cëralee sa bopp respecté sa bopp nit ñi dañ lay respecté boo gisee jox na ko cër respecté na ko waaw parce que xam nga première fois ngeen di def prise contact ngeen di gisee. Mhm. dafa am lu bari lu muy joué ci balance bi. d'accord démb bu ñu doon wax dañuy wax ne. Mhm. président yi pesé na lourd ci balance bi. Mhm. boo déggee sax ci biir wax ji da ngay gis ni li Assane di wax noonu sànq li muy expliqué ne. Mhm. dañ ne woon nañ fi jóge. boo seetee looloo nekkoon ci taabal ji mais boo seetee Macron ci biir wax ji da ngay yëg ni. le fait mu nangoo yóbbu deux cent yi bàyyi fi cent yi loolu mooy sagal ñu. mais loolu da wóor ne la. nangu na ni dañuy dem waaye nag am na noo xam ne bu ñu ko génnee day ñaaw maanaam day mel ni dañ leen a dàq hmm. comprendre nga léegi nag danañ dem mais nañu ko def étape par étape étape par étape nañu def ni ndànk bu ko defee français yi des fa tuuti ñu daal de kii comprendre hmm. pour suñu amitié ànd bi ñuy ànd gën a mën a continuer nga gis ni tamit nangul na ko ko hmm. euh, lu mel noonu kon donc dafa mel ni kii dafa saraxu pour def lenn li boo boo liree entre lii ñu loolu ngay gis quoi. da ngay gis mhm. ni wax ji lii lay firi quoi. Mhm. comprendre nga. waaw parce que nangu naa yóbbu deux cent yi. deux cent yi bàyyi fi cent yi mais ak accepté na. loolu nag dafa nekk loo xamante ni bi lu am solo la parce que loolu moo ëpp doole Assane euh, ñu ne dem nga may nañ la xaalis ñëw nga jox nañ la lii jox nañ la laa jox nañ la lale. Mhm. dañu war a jóge ci cadre boobu quoi maanaam saa yu ñu jàkkaarloo kii rek dañoo war a tàllal loolu baaxut. bu boobaa tamit dañ lay yeb comprendre nga. si parce que il faut ñu xam ni euh, war nañu mën a dem surtout surtout que boo ñu am ay njiit yoo xamante ni bi njiit yu baax lañ. man nag damay wax ni yàlla dafa gis nga président Diomaye yàlla bu ko ca dugg mais dafa am loo xam ne damaa gis ci ay euh, mbiram. Mm-hmm. que ni maanaam ay mbiram dafay yomb. Euh, dafa suñu borom da koy yombalal yëf fii waaw li ngay jàpp ni lu diis la day woyof. day da ngay xool président Diomaye ni mu nekkee président. Mhm. comprendre nga. waaw maanaam sunu borom tegal na ko koo xam ni moom mooy. léppam mooy xeex lépp. Mhm. waaw li ñuy sànni ci kawam lay li ñuy def yépp kooku la. mais moom moo war a nekk président même journaliste sax bu ñuy xas ak ŋàññi. yaa ngi dégg kële la ñuy ŋàññi. non avant muy yegg sa avant muy nekk président laa wax sax oh. bi ñu nekkee opposition. waa ci opposition lépp dafa am koo xam ne moo liggéey yëf yi. Mhm. gis nga position bi mu nekk nii bi Sénégal nekk nii tamit tey. Mhm. lépp doole ji nga xam ne moom la Sénégal war a ci Afrique. Mhm. dafa am ñeneen africain yu ko ko liggéeyal mooy Mali Niger Burkina. léegi boo deful ndànk moom mooy ñëw nag léegi nekk ca nekk au sommet ci yëf yi maanaam dafa mel ni ñooñu li ñuy def noonu yëpp lu ñu koy defaral lu ñu lu ñu ko préparer terrain bu ñu préparer la moom day ñëw rek dox ci. Mhm. parce que su ñëwoon parce que le fait ni mu doxalee mooy la na ne la féetewut. Mhm. fenn mais maanaam démb dégg naa li ñu doon wax fii dégg naa benn française bu ko wax sax bu ko bu bu expliqué daal ne. Mhm. moom rek mooy ki nga xam ni dem na gisante ji ak waa Mali ak euh, ay waa kii. Mhm. mën naa waxtaan ak ñoom mën na nekk interlocuteur comme li ñu doon wax rek loolu la. exactement loolu noon la ko expliqué sax ne mën na nekk interlocuteur entre ay France bi mu doon tey même bu fekkee ne bëgg de situation réglé waat ak ñële mu nanguwaat lu bari. Mhm. mën na ko jaar par Sénégal. et puis Sénégal tamit mën na régler problème boobu. waaw ah, dëgg la xam nga loolu. ndax jomaay jox na lu ko waaw loolu suñu borom moo moo koy defal. Mhm. moo tax ma ne yàlla bu ca kii mais affaire yi dana nooy de incha allah. Mhm. waaw dana nooy nepp bu soobee yàlla. parce que boo xoolee rek c'est que mag ñi sooy bi dañ daan demee ay tegtal quoi parce que gis nga sooy bu gis nga njiklaay dafa am dafa am yoo xam ni. Mhm. ay signe la quoi yoo xamante ni bii du réer. mais dafa am ñoo xamante ni bii. dof gis nga tey hmm. di nga gis góor gu bëgg jigéen sonn ci lool te du ko takk hmm. wala ay ay mbiram di dëgër mu kii ci mu leex naa la ay jabar dañ koy seet da ngay def nii di nga dugg ci nit lépp dëgër hmm. comprendre nga si léeg-léeg tamit nga yoo gis nga tey xoolal nguuru président Macky Sall xool nguur gi ni mu ni mu demee te taman dama jàpp ni président Macky idée yu baax la amoon ci njalbeen gi. Mhm. mais lépp dafa forcé ci diggante bi. Mhm. te gis nga ko moom ni mu dootee ci nguur gi ni mu yombee. si ah? mhm. jot na ko jot boo xamante bi jot bu yomb mais gis nga après lépp a bloqué. dëgg lépp ma kii quoi. mais man gëm naa ni Diomaye li Ousmane Sonko doon wax l'autre jour jamono jiñ toll ni tembe wóor na yàlla moo gën ci senegal waaw te wax dëgg fa yàlla mbir yi mi ngi gën a leer quoi. te bon am na yu bari yoo xamante ne bii noo affaire yi incha allah dana nooy de. Assane jarut ay takk weer ñàngal ay kii ak yooyu. nee nañ mi ngi nelaw kay. <laughs> non waaw parce garabam yi muy naan mu sax war nañu koo xool yan garab la. Hmm. ne na ma. di ne ko xëj di ko xool. bëgg may rege ju waale. <laughs> ko bëggee nañ ko wax rek commentaire sax ko ma koy def. waa day rege ne sanda pas si regejul fii rek commentaire bu ñuy bu ñuy bu ñuy sàkku may regeju ma regeju euh, ah waaw faale woo ci jàmm rek sa sama yoon da seen nekk ñoom seen mbégte ak sama yitte dem gis naa benn waaye envoyé benn sabar ci tigre naan sabar gi moom ñu ngi jeexaat xaar yow envoyé wu ma la ko waroon parce que loolu moom jamono war na cee jóg. <laughs> alaaji war naa la moom <laughs> loolu <laughs> mi ngi topp fii kii mais mais. sabar yaa ngi toj de. yow Mama Sarr xanaa déggoo ko kon lii yi ma waxaat. waaw xam nga nag topp génn wet rek di taxas. Hmm. man ak Assane def feeg Mama Sarr Imam Matar émission rëy. waaw. xanaa seetaanoo ko seetaan naa ko topp yee alors. waaw mais il faut mu ñëw ci sabar waaw mi ngi ci ñëw kay déggoo keroog ak booy doomu seka bi ñu teg. waaw déggoo yóbbu na ko ci yoon. xam nga ñuy wax déglu dara. avertissement avertissement kan. moom dañuy koo xam ñëpp si yam daal en tout cas. non non mais loolu non Assane avertissement Assane xam nga yow nag Assane. kooku sax gis na <laughs> gis naa avertissement la ko pour lii bu mu amati. mais déedéet ko waxoon loolu. yow Assane xam nga alaaji toujours moom. Hmm. day digle dara te di ko kii yow yaa waxoon fii nii. mbir yoon ni mu war a demee bu nit defee dara danga naan ko bu mu amati. mais waaye kay avertissement wu leen ko de avertissement wuñ ko de. toog ci pénc mi ni ko nit li avertissement la bu mu amati ba léegi sax maam Maxtaar tudd tudd turu ndaw si turu waa ji. baax yow yaa ne kii doomi nanga la mun la doomi geeg doomi yëpp si yem.